citoyen bi nga xam ne dafa jël alalam jox ko euh, ki toogal askan bi muy li ñuy wax euh, euh, les ressources publique kooku dafay soxla aussi ñu rendre ko compte day soxla information beneen bi mooy ki nga xam ne tamit dafay gérer muy état bi administration bi dafay am maanaam yenn saa lu koy gàllankoor li koy gàllankoor moy amna na données yoo xam ne dafa jëm ci walu justice am données yo xamné ay données personnelles la am yo xamné ay secret médical la mais yooyu effectivement il faut que dialectique bobu manam ñu jëma mingalé ñaar yoyu ba nga xamné ne danañu mën def no xam citoyen dañ ko am problème Sénégal fi ñu toll moy bi adhéré ci initiative bi wax PGO Sénégal daf ci duggé ak 75 muy jéego bu am maanaa tamit doyul ndax li nga xam ne Sénégal faiblesse la woon te ñu war ko euh, régler fi mu ne nii ñu taxaw te mooy la une loi accès sur sur l' information ay textes yu bëri na consacré na ko boo demee si code euh, des collectivités territoriales di nga fekk ni citoyen bi am na sañ-sañu laaj. Euh, ñi ko toogal ci gox bi ay information ñu jox ko ko waaye boo xoolee texte yooyu dafa wasaaroo li ñu bëgg nag mooy léegi mool benn texte boo xam ni citoyen bi bu soxlaa information dina xam moom lan mooy àqam ak yelleefam administration bi xam lan mooy devoir am mais également ñu teg li ñuy wax dispositif boo xam ni di nga am foo koy laaji bu administration lànkee nga am foo koy jàmbate nga mën a sax yëkkati ba ca dem man bu ko jaree si yoon ba yoon tamit mën laa nangul sa sa àq ak sa yelleef. initiative bi mooy dañ ni oli nañu boole ànd tabaxandoo liy njariñu askan bi loolu moom mooy mooy solo su initiative bi. moo tax ñuy wër fukki régions yi ak ñeent ñun déjà comité national bi tëju nañu génne ay loo xam ne yi xalaat nañ ni. bu ñu ko defee ci plan bi di dina askan bi si gis si boppam mais dañu loolu doyut nañu dellu ci biir région yi dajale nit ñi société civile citoyen yi ñoom tamit ñu wax li nga xam ne lii bu doon seen sogo bu ci état bi gënee def ay jéego dina dina baax pour ñoom bu ñu amee sax yenn loo xam ne lii ñoom seen réunion gis nañu lii war nañ ci gën a sukkandiku te ñun ñu fàtte woon ko ah permettre nañ leen ñu wax ko comme ça léegi yooyu yëpp ñu bind ko ci plan national bi. yaa ngi wax léegi affaire guerre bi loolu aussi jéego comme li si nit ñi di wax yi ñuy ñaxtu. nit ñi mën nañ def ay proposition pour wax nan nañuy réew mi nañuy lëkkaloo nag ba Sénégal get ko fi ba ñu génn ci zone rouge bi ñu nekk depuis ay at Sénégal point faible am mooy ba léegi amul loi l'accès à l'information depuis fukki ak société yi mu ngi koy xeex léegi nag am na ay jéego ah parce que yaakaar nañu fi la fin d'année bi par exemple ci session bi yoon assemblée bi daañ ko wote mais solo ci kay mooy yéen seen préoccupation na fexe ba feeñ ci loi bi ñuy voté parce que une chose de voter une loi mais voter loi boo xam ne bii nag yéen ñi si yëngu gis ngeen seen bopp bu baax